جل جلاله إني فقير ومسكين ومنكسر محتاج غيرك في تيسير أو أجمالك يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا بني ربي فاغفر لمن أناب إليكم ربي فاغفر لمن أناب إليكم آه، من ما يتدو الحاج مختار جاي آه، نك بريزيدان كوميسيون أكي نك أدفين سكرتير الأورغانيزاسيون ناسيونال نك تم ممبرو بيرو ناسيونال كوسكاس waaw koskaas day moom mën naa wax ne samp mag la waaye nag am na lu ko sabab ndax lu nekk rek day am sabab parce que koskaas huit kenn ku nekk xam na ne moo doon grève bi gënoon a metti ci Sénégal ci jamono yooyu parce que booboo mën naa wax ne Dakar région yëpp amoon nañ ay yëngu-yëngu ci xale yi ci grève bi jamono yooyu mu tombee gàmm bi mu tombee gàmm nag ah munu bi mënul euh, sécuriser maanaam ni mu waroon a indi ci force de l'ordre pour mu assurer mawlud bi ak li ci aju lépp ah mu amoon ci ay jafe-jafe wax ne loolu du ko mën mais li mu jotoon a yónnee ci ay éléments bi ñu ñëwee dañ ne Serigne Cheikh daf ne nañ ko yóbbu suñu kër euh, maam ju baax ja alaaji euh, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh ah ki nga xam ne moom kenn la woon Serigne Cheikh na nañ ko yóbbul euh, force de l'ordre yi foofu ah ci la waxee woon Serigne Abdou ak góor gu baax gu ñuy wax Ibrahima Samb am na ay mag yu bari yu fi nekkoon ci kër gi am na ñu ma ci mën a cité en tout cas mu wax leen na leen kër gi garde yi ay góor lañ garde yi ay góor lañ ah seetal ci kër gi ci ñi fi nekk nga seet ci xale yoo xam ni danañ am matuk mën a jàppale ñii ñëw taalibe yi ñëw ci organisation bi ba duñu am benn jafe-jafe ñu tànn ci juróom-ñaar fukki góor ak benn maanaam ci jamono juróom-ñaar fukki nit la woon ak benn juróom-ñaar fukki nit yooyu ak benn bi ñu leen waxee li nga xam ne lii moom lañ bëgg ñu joué rôle bi nga xam ne mën naa wax ne ci wàllu organisation jàpp leen yi taalibe yi ci buntu kër kilifa yi ñu war a mën a gisee ci lépp bi gàmm gi jeexee ah ñoom li ñu gis mooy ah garde yi daañu dellu de waaye lii moom bu mu fi jóge waat parce que ñi fi nekkoon doon nañ xamanteek mu xaddam yeeg président daayira yi président fédération yi ci laami soo xàmmee ba tax na jàpp jàppandal lu bari daf caa feeñ ñu ne nag lii bu mu fi jugati bi gàmm gi jeexee Serigne Cheikh dellu Dakar ci wa woo Serigne Abdoul Aziz Al Amin mu ànd ak délégation ba mu àndaloon ci ma wax sànq Alaaji Ibrahima Samb ah ñu mu leen kët lii dafa mel ne kër gi mun la ñàkk mouvementement garde te lii comme kilifa yi nee nañ bu mu fi jugati kon lii na ngeen ko continuer jël alif laam miim moom Serigne Cheikh na leen ngeen def ko muy seen téere wattal alif laam miim même boo ko déchiffré juróom-ñaar fukki lay doon ak benn moo tax lépp loo gis ñu ne la koskaasu ko moom boo xoolee danga nga gis alif laam miim parce que juróom-ñaar fukki ak benn ya nga xam ne ñoo yore war organisation bi ah ci nitu yàlla bi mu leen joxee li nga xam ne mooy loxo koskaas bi alif lam miim la ci loolu ah ñu continuer ak organisation mag ñi taalibe yi ah sunu góor gu baax ga alaaji Abdou Aziz yàlla na ko yàlla doon leer sunu maam ju baax ja mu wax Serigne Abdou na ko lii limite bi ñaata la mu wax ko lim ba mun na ko yokk leen ko Serigne Mansour ne yokk leen ko xam nga moom ci ceem dafa dem sax ba ne bu leen ko wutale ci limit ci jamono yooyu nee naa la ñi ñi ko njëkk a sos moom juróom-ñaar fukk la woon waaye nag dañuy def gàmm gu jot comme nee nañ lii na continuer nit ñi ñëw nag di adhéré waaye tam demoon nañ bañ na dañ koy maanaam limité mais kilifa yi mujj d'accord alaaji Abdul ji sunu maam ju baax ge Serigne Mansour kilifa yëpp joxe ci ndigal ne bu ñu arrêté ci lim bi nañu ko organiser yokk ko moo tax fii mu toll nii ba léegi nii mën naa la wax ne la sept mille hommes nekk nañ en tenue ci li ñu xam ne lii tey mën naa wax ne ay xale yoo xam ne yi ñu ngi ci dëkk bi sept mille yoo xam ne ñoom ñëpp engagé wu nañ pour ñëw nekk ay membre actif pour nekk ci COSCAS COSCAS dafay fonctionner ci ñaari fonction membre actif mooy ñi nga xam ne ñoom nga gis ñuy sol tenue yi ñoom la ñuy wax membre actif yi ñi nga xam ne ñii nag après membre soutien yi mooy ñi nga xam ne ay taalibe lañ mais bëgg nañoo dugal seen loxo ci mawlud bi loola am na ay carnet yoo xam ne yii ci section yi lay nekk ñooña ca la ñuy def seen participation su ko defee loola la ñuy boole nag ñu dugg ci organisation gàmm gi nga xam ne tey yow yaa nga ca sa dal di topp toppatoo sa dal waaye itam liy organiser gàmm gi sa loxo dugg na ci membre actif yi nag mooy ñun nga xam ne ñun dañuy jënd chaque année dañuy def dix mille mooy sa warugar ci gàmm bi ba pare sol tenue bi ñëw déglu kiñ la booleel parce que koskaas ci façon yi muy dox mooy dañ lay wax ne la doo ànd ak kala neex ngeen di def la leen neex mais dañ lay da ngay ànd ak kañ la booleel ngeen def lañ leen sant moo tax boo gisee koskaas ni commission yi bari na banqaas yi dafa bari parce que mën naa wax ne commission bii rek accueil la boo génnee fii am na commission yu ñuy wax gindi am na commission yu ñuy wax barrière am na commission sante am na commission escort am na com dafa bari ordre accueil mosquée ba pare kër sëriñ si foo ci dem encore COSCAS yóbbu na fa benn effectif boo xam ne bi ay membre COSCAS lañ foofa la ñuy nekk ñoom it ci kër kilifa ga nekk ci ndigalam ak kañ leen booleel di ci déglu ci seen ndigal ba gàmm gi jeex ñu dellu si ñu yeewi ñu ñu dem man commission bi ma yor ak ay la tudd léegi mais ci ay jamono temps wu alaaji ibrahima sàmm mi ma lay wax booba mi ngi tuddoon xee et ki yore woon commission bi di sama grand bu baax ñu ko doon wax Alaaji Ngalla Pay yàlla na ko yàlla dolli leer eh, moo jiite woon commission bi booba amu lii fi nekk nii wax dëgg yàlla booba amuñu ko woon mais booba commission bi nag booba la metti woon parce que xee et tribune ñoo daan ànd ak maanaam euh, force de l'ordre militaire yi bu ñu ñëwee installé lu tribune yi ba pare ñun ñoo koy installé suñu bopp ci chaise yi biir bâche bi yëpp euh, pare encore def benn xee parewaat encore di di contrôler carte yi nga xamné ñom ño wara ñew a ci fi ñuy defee cérémonie bobu xéetu bi la tudon batay légui nak mu tuddu akay akay ba légui ñun ño yoré mbolém ni accueil place bi akay moy accueillir nit ñi danañ def xee bu suba ci ngone comme bisu cérémonie bi rancelé koskaas yi ñu def ben xé bu rafet accueillir bu euh, bu rafet porte yi nga xam ni yëpp itam fa la nit ñiy jaare daan fa teg ay éléments yoo xam ni ñoom ñoo fay nekk di contrôler carte yi nga xam ni ñoom ñoo war a ñëw ci cérémonie bi euh, accueillir pèlerin yi loolu ci même dañoo yore commission bi nun rek mais li ñu wax mboolem membre COSCAS yi mooy képp koo xam ni ki yaa ngi sol tenue COSCAS jàppal ne accueil nga ndax képp ku jóge feneen bi ñëw ci bis bi ngir yàlla ak yonent bi guddi Cheikh El Hadj Malick bii nga xam ne dafa waxoon ne mag mu amul lu dul benn dëgg di ko wax ci genn guddi di ko wax ci mennum at bu sañoon bu koy wax képp ku njabootam ñëw fekke si ko ab commission la mooy accueil moo tax gis nga bat yi nga gis yëpp accueil lañ ciy def accueil léegi nag ñoom bu subaa ci e, moment bi cérémonie bi war a commencé ñun ñooy taxaw ci porte d'entrée yi di accueillir nit ñi di leen yóbbu ci seen i place ànd koog sax waa Esplanade waa Esplanade ñoo ko bokk léegi ak ñoom di organiser ci biir saal bi ak ci bi hmm? waaw ku bëgg a bokk ci koskaas xam naa li ñu gën a tàmm ci koskaas ku ci bokk mooy bala nga cee bokk d'abord nga bëgg ko waaw nga bëgg ko ci sa ne man wax dëgg yàlla day bëgg naa bokk koskaas ndax koskaas daf lay wax ne la pour nga bokk ci foi discipline discrétion foi bi mooy na nga ko bëgg ndax boo ci xasee ba ñëw ci nga amal affaire service bi COSCAS comité d'organisation au service ba kër Sy soo xasee ñëw nag ba dugal sa loxo bugguñu nga dellu gannaaw dañoo bëgg rek toujours ngay avancé te boo duggee ci dara te buggoo ko ay fan rek man nga cee eh, génn te loolu gënul ci eh, discipline bi mooy ngay foi discipline discrétion discipline bi mooy kiñ lay booleel parce que man ngaa ñëw fii ak noo ti toll boo bokk ci koskaas ñu ne la yow lii ngay def demal ca daral ba nga toog foofa di upp weññee sax loola li ñu bëgg ci discipline bi mooy nga xam ne loolu dañ la koo sant yow yow ci loolu ngay amee la ngay am Ibrahima Samb daf daan wax ne buñ la yóbboo daral jox la wantaay ngay upp weñ ya nga bàyyi fa loola ñëw di upp Serigne Cheikh wala Serigne Abdou doo ci am dara ndax defe woo ko ci ndigal ndigal la mooy fañ la waxoon ne la dem fa rek yow nga dem fa waaw. waaw gàmm mooy préparer ko rek parce que lu toll ne organisation mawlud ku koy def il faut que nga préparer ko commission yi danañ réunion lu baree baree bari.

bàyyi ci loxo maam Ousmane maam Ousmane di ko bàyyi dinu ko jox xalifa Niang mu dinu woo di ci waxtaan ak ñun ndax euh, organisation bi ñëpp ko séq kon balaa ñoo agsi ci bis bi commission yi ko war a saytu yëpp ku ci nekk danañ réunion ay yooni yooni yoon di ko préparer ndax bu ñëwee rek ci kàttanu yàlla ak yonent bi ñu ñaan yàlla réussite nag e bëgg ci itam waaw fi mu toll nii day wax dëgg yàlla ah mën nga ne organisation bu toll nii eh, ndax maa ngi fii xëy na ñeneen a nga feneen ñeneen a nga feneen waaye daal macha allah jàpp nañ ne daal ba fii mu toll nii gisaguñu amaguñu benn problème majeur boo xam ne bii mën nañ ne lii téye na Coskas ñu ngi ciy liggéey di ci ànd ak niñ ñu ko sante di ci ànd encore ak force de l'ordre parce que ñoom it il faut ñu gërëm leen sant leen ci collaboration bi nga xam ne am na ci seen diggante ak ñun parce que xam nañ ne ñoom dañoo ñëw pour jàppale nu non seulement pour sécuriser nu mais jàppalenu ci organisation bi amuñu benn problème ak ñoom comprendre nante nan bokk na liggéey bi ah loolu itam wax dëgg yàlla dañ leen koy gërëmee di leen ñaanal yàlla yéen itam ñu di leen sant di leen gërëm parce que bari na fu nit yegg yéen a ko fa yeggale kon yàlla na yàlla bokk euh, jàppale leen dëgëral leen kaweel leen ah kii ci sama wet nii mooy sama rapporteur commission moo nekk nii ñii ay membre lañ eh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax يلا يلا دفل لن جم دفل لن خيول ياتل مريم جل جلال إني فقير ومسكين ومنكسر محتاج غيرك في تيسير أو مالك يا أكرم الكرام يا أرحم الرحمن الطف اللطفا يا بردا جل جلال أنت ولي في الدنيا وضرتها توفني مسلما في رقي أبرا